auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant Serigne Touba Serigne saaliw di ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal Serigne Cheikh Saliou mu yàgg fi lool te ànd noonu la koy ñaanalee Serigne Saliou Thioune ndigal di xalif général ku lu cantaakoon di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di dem ci këru ëtt diine bu mu mënti doon. di fekk xalif général ba ne ca bopp ba di ko ñaanal suñu borom may ko gudd fan dolli ko wér yokk ay ndamam ba yéene ji mu am liggéeyal ko maamam suñu borom kàttanal ko ba mu àggale ko ci doole Muhammadu Rasulullah alayhi salaatu wasalaam noonu la ñuy santee suñuy waajur di leen ñaanal ñu yàgg fi lool te ànd ak wér waajur yi nga xamante ñoo jiitu suñu borom xare leen ci àjjanuy kawe ñi fi des yàlla bàyyi leen fii ñu fekkee lépp ci barkeb Serigne donc yaakaar naa tey daje bi ñu daje.

conférence de presse bi té liko jitu moy ñu way kenn ci kangami l'islam yi kenn ci jëwriñu yaronte bi alayhi salatu wassalam ñu gën ko xam ci Serigne Babacar si borom carré bi borom manto bi ñu génneel ko way wiyes way wi nak tay ji la gën ku ne xam na ni tay ji la premier jour Bourd te Bourd am na lu muy signifier ci ci ci ci ci ci ci tarixa ya pour ne pas dire islam donc nag euh, ñu télescopé ko fexe ba contextualiser ko ñu génne ko à 10 heures le, le single bi génn ñu tuddee ko Serigne Babacar Sy Pape Mboup mu Serigne Saliou Talib Serigne Béthio woy Serigne Babacar Sy loolu yaakaar naa lu lu lu lu jaadu la te ku ku xool sama œuvre yi ma def euh, récemment màggalu daaw ma bind album 12 titres tuddee ko Serigne Touba la solution am na ci woy woo xamante dama ko jëloon jagleel ko yonent bi alayhi Euh, euh, rendre ci hommage mag ñëpp képp kuy kuy kilifa diina ma rendre le ca ca ca ca woy wa donc loolu saa euh, nous ça montré que ni am na perspective bu ma doon lancé donc nag perspective yooyu nag moo waral ba tey jii ñu ñu ñu ñu ñu jël kenn ci kàngami lislaam yi muy Serigne Babacar Sy nga xamante ni li ma booleeg moom dafa bari yaakaar naa bu ñu doxee waxtaan bi su doxee tuuti di ci gën a am aperçu di ngeen ci gën a am mën a am ay éclaircissement donc loolu waral tey bi single bi génnee moo woo presse bi

macha allah waaw waaw soxna Mbène ñoo ngi lay siyaare bu baax yow tamit di sama jigéen di sama xarit lu ma mës a woote lu ne rek eh, ànd nga ak sa site waa Wassare TV ñëw teew teew donc nag liggéey bi eh, eh, mën naa ni yombul bu yombee sax baaxul sagam lu jëmul ci diine lu jëmul ci lislaam moo dul yomb waxutuma laa lu jëm ci diine lu jëm ci lislaam donc man bu yomboon sax du ko bëgg ndax ndax lu yomb lu ne rek baaxul donc bi ma jugee nag projet bi projet la boo xamante ni euh, bi ñu ko nasee yàgg na ak ak ak groupe Tarawlis maa ngi ciy cité kenn di Abdou Aziz Mbaye projet la boo xamante ni ñoom sax bi ñu koy nas xam nañ début bi mais xamuñu fan jëm ndax man li may faral di wax rek man man euh, euh, way yi may woy sëriñ bi di ko way yonent bi ak i gaayam dem naa ba xam ni man missionnaire laa ci dem naa ba xam ni fi ci ñëpp yam war naa ko weesu ndax sëriñ Saliou wax na ko Euh, du ma fekk mukk lu yàlla yaatal ma di ko xatal te bi ma jógee ñu bari comprendre waaye képp ku nga xamante ni rek bëgg nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam te euh, biñ ci waxtaanee ndax man faral wàllu woy yi may woy nag euh, du ma ni dama ciy waxtaan ak ñëpp mën naa ni ñu néew laa ciy waxtaan te ku ma ciy waxtaanal it du ciy waxtaan ngir nga ci ngir nga wax ma ci ma def ndax ndax ndax woy mbiru jinne la surtout man man li may woy dama gëm ni luy jóge ci sama biir xol la ay ay ay sensation la ay yëg-yëg la te yëg euh, sensation yooyu nag mën nga koo bañ a partager kii que soit mën nga koo ñëw ku mel ni Gallo nga waxtaan ceeg moom fekk bokkoo leen yëg-yëg ba donc moom fi mu toll les instant bi nga ko ko wax yëg-yëg bi mu ci am bu fekkente ni bokkoo leen partagé woo leen ko na la mën na la mën na la découragé la te man je ne je ne fonctionne pas comme ça donc bi ma jugee rek vraiment am yéene woy euh, ba ma ba ma defee album ba laa xam ni képp kuy kilifa diine danaa la way ma jug nak choisir Serigne Babacar pour njëkkee njëkkee ci moom way wi nak bi ma jugee ci màggal gi ay la yéwén ci l'a bind way wi ma bind ko ci temps boo xamante et donul temps bu durée bu yag. dama ko dougal rek dama ko bind rek dem kale ko studio donc pour woon la ni la liggéey la boo xam ne boo jugee rek am am engagement bi am détermination bi suñ borom moo la ciy fekk si rawatina borom woy wi donc pour wax la ni la d'une part yomb na d'autre part yombul macha allah. waaw sama digganteeg sëñ kër mën naa ni bu ma ko bu ma ko bu ma ko bu ma bu ma ko sañee wax li nga xam ne moom lañ bokk moom lañ bokk ak moom te bokk ko képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah muy seen suñu dénominateur commun mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax moom moom moom mooy dénominateur commun bi donc ñu bokkee foofu ba pare waaye nag ma xam ni jëwriñ la ju ràññeeku ci biir ci ci ci ci jëwriñ yonent bi alayhi salaatu wasalaam man pas en personne ma def prise de conscience xool li ci sama ginaaw xool li ci sama kanam ma xam ni dama dafa bari fu may télescopé ak ak ak ak ak ak ak waa Serigne Babacar si man ci sama walu yaay waaye juru jigéen surtout mam Babacar Diop njaxeer la di mu xaddamu Cheikh boo demee dingaraay gële nga ñu dëkk nga xamanteni ni fa la sama cosaan sama ñom yaay fa lañ cosaanoo ay taali ay mu Serigne Babacar rek ñoo fa donc ma jóge ci loolu euh, euh, euh, man sama bi may ut soxna c'était pas évident pour ma pour ma pour ma pour ma ndax man j'avais l'impression que ni cantaakoon lay am soxna waaye ci ndimbalul suñu borom li nga xam ne des fois suñu borom moo lay moo lay moo lay dugal fam yow sax doo comprendre sama soxna ñoom seen famille ñoom ñëpp di ay taaliba cheikh di ay muxaddam di di sëtu maam kër Diop Njaxeer ndeke ñu bokkee foofu taxaw ma ko waaye ma am ci sëñ Babacar cofeel goo xamante ni Euh, dama ni lii du lu may wax lu may jëf lay doon lu may may wax mais lu may jëf la parce que am na ci loo xamante ni li nga yëg la li nga yëg lii di nga ko mën a wax lii doo ko mën a wax lii da jug rek traduire ko en action moo waral tey ma ma génneel ko single bu mel waaye nag li ma ci gën a neex bokk na ci bokk na ci daanaka ñi may jëflanteel dans la vie courante ñu ci bari muy ay kilifa ak ñu mu ci mënti doon ñu ci bari ay taaliba Serigne Babacar si lañ te ñooñu. dañu am ci man cofeel ba nga xamanteni wallay nangul ma doon gima ma doon talibé Serigne Saliou dima fekk ci samay biir yi way Serigne Saliou diko ko manifesté ah man sax daf may muju jural kersa nga xamni ni la tolérance yam parce que tubaab da euh euh ma liberté s'arrête là où commence celle des autres te on a la prétention de vivre en société donc rafetal da bokku ci diiney l'islam ma xamni sama soppe yoy nga xamanteni ay talibé Serigne Babacar suma juggé jokkor bi ki nga xamanteni mo ne ci sen biir xol tama bokko ak ñom suma ko défé dana leen gëna neex ouverture bangok ndax Senghor danako enrichissement mais ouverture pap mbub tant vers la perfection te on ne veut pas quelque chose et son contraire mono ni da nga bëgg international bëgg teunk sa bop ku ne xam na ni Serigne Touba mi nu adina ak alakhirah mo gëna ubbe ku ñep ndax ba mu irxam jamim jooju wax alwaraa waxuma la waxuma la murit waxuma la tiyaan waxuma la xaadir waxuma la jullit waaye képp kuy am ruu tey noyyi boole na la ci yërmande jooju waaye ñun mënuñoo yaakaar Serigne tubaab bëgg ko gëm ko doyloo ko àddina nag àllaaxira ñun ñu bëgg a tënk suñu bopp mënul nekk. ki nu bokk mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam te kooku rek war na noon boo war naa mën a tax ñu bokk lépp man nag awma leneen lu dul baat baat laa am man a way sëriñ bi def ko ci man may mam xel may bind te luma ma bind maa ko maa ko inspiré sama bopp maay composé sama bopp lépp man nag jublu na ci sëñ Babacar donc way ko mu doon way woo xamante ne en plus lu a way neex na ma waaye way wi ma way sëñ Babacar bokk na ci ma gën a neex barke Serigne Saliou. que sa yooyu tey pare nga pour yóbbu ko ci télé yi wala da nga bëgg artistes yi fii may wax ak yow nii dana euh, euh, clip bi dana jàll euh, clip bi mais son bi day soog a génn nii nii nii. mais moo ngi YouTube ku def Pape Mboup officiel di nga ko fa fekk mont defar nañ montage bi sama photo ak photo ku tedd ki borom manto bi ma xool photo boo xamante ni photo bu symbolique la ku ne xam ne sëñ Babacar photo boobu euh, image boobu mu mu mu solee manto bu euh, photo bu symbolique la ma jël ko boole kook sama photo fi mu ne ku dugg ci YouTube bi danga ko fa fekk fii may wax yow am na ci rajo yu baree baree baree bari dana fa daw léegi léegi léegi léegi léegi ndax ndax fii fu ma daan jaarale way rek jaare naa jaarale naa way wii fu ko raw te fii may waxee ak yow bala ñoo jëm ci gàmmu gi bala damaa bëgg rek gars yi gaaw gaaw ko mën maîtriser ko deux jours trois jours quatre jours bala muy des cinq jours gàmmu gi ma génneel leen clip bi ndax tey bu ma amoon ni milliard danaa ko def ci woyu baaw kër Si wii dëkk bu ma amoon ay milliards barke Serigne Saliou danaa dem ba ca danaa dem ba danaa dem ba Maroc danaa dem ba États-Unis danaa dem ba Paris la France tourné fa clip bi xool xool bërëb yi nga xamante ni méngoo naa kenn way mu doon clip boo xam ne clip idéal lay doon donc nag ci loolu laay profité maa ngi ciy woo képp ku nga xamante ni du ma ni taalibe Serigne Babacar waaye képp ku nga xamante ni yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illa ashhadu an laa ilaha illallah maa ngi lay woo ci woy wi ndax kilibi la boo xam ne bu ma soñoon <laughs> danaa ko kilibee ni ma musta kilibee ndax woy wi ci sama biir xol laa ko jëlee barki Serigne Saliou di nit kuy dox maa ngi lay ziar Moussa di la bëggee yow it lu ma mës a woote teew nga ci maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax Euh, li ñuy wax rek gis nga travail la boo xamante ni man carrière laa yor man carrière laa yor te sama carrière bii duma ci ménager aucun effort ngir mu exceller ci du lu ma war a def damay toog tey rek def ko man damay projeter woy yi ma woy sëñ Babacar tamit génn nii lu ma yàgg projeté la ndax ba ma defee album douze te la projeté nii dinaa dinaa dina dinaa dina dinaa woy kilifa diine yëpp wàññi nag faaw nga tàmbali ci benn wàññi man maa def choix tàmbale ci sëñ Babacar ndax màggal gi ñu génn rek Serigne Touba way maa ngi ko tuddee boor boo mën ta fay Serigne Touba laa ci way gàmmu gi ma ni sëñ Babacar laay way donc pour wax la ni la man damay projette duma bàyyi ba du ma bàyyi ba yëf yi ne këtti ni jonn ma soog a way damay projeté amoon naa yéene def ko bi mu jotee rek moo tax li tax du ma bëgg dugg ci yenn détails yi man man du ma polémique man du ma polémique te damay damay bëgg di lu may wax rek euh, euh, euh, mu doon mu ànd ak objectivité nit ñi kenn ku ne ak sa gis-gis nit ñi kenn ku ne ak sa wax nit ki melul ni mu wax ni mu jëf la mel te erreur de communication day am nit ki mën naa wax dara fekk ay la yoon ba mu koy wax su jubloo ko nit ñi déggee ak nam ko waxee si jàmm diamétralement opposé loolu booy def théorie de la communication dan la la koy jàngal moo tax communication dafa xaw a sensible dafa xaw a sensible ba tax na li ma gëm daal mooy bokk man nag souvent sëriñ bi dafa may dimbalee leen lool na bokk na ci li may sante sëriñ Saliou mooy lu may lu may lu ma lu lu ma na lu ma nas ba war koo def rek sëriñ bi fexe ba mu ba contextualiser ko lu ma nar a def rek daanaka ci woy yi may woy sëriñ bi sëriñ bi dina fexe ba ba ba mel ni contexte ba daal day xaar contexte ba jot rek ma génne ko waaw kon woy wi woy sëñ Babacar dafa ñëw ci contexte dafa ñëw ci jamonoom ndax daal maa ngi woodewaat nañu xam ni lislaam ji benn la nañu xam ni diine ji benn la nañu xam ni euh, kaamilu alxuraan ji benn la nañu xam ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam kenn la te ñun ñoo koy bokk ala kulaal ñoo koy bokk ku ne ku ne xam na ni nag ku ne xam na ni kenn ku ci nekk nag dañu naan dañu naan kii murid la kii tiijaan kii xaadir la la waaye nañu xam ni yonent bi moo ñu boole te yonent boobu ñu boole kenn ku ci ne daa am lum la cëral kenn ku ne dafa am lum la cëral donc donc ñuy éviter yenn wax yi tubaab ne na tout texte est nuisible nit ki di nga ko wax dara fekk nang ko ko waxee su su su diingatee wala mu xarab yow yaa ko teg donc ñuy sóoraale bu baax a baax a baax a baax a baax ni ñuy communiquer ku ne xam na ni Pape Mboup mi boo xaree xolam bii hmm, Serigne Touba Serigne Touba ma defal lépp. Serigne Touba moo ma defal lépp jaarale ko ci Serigne Saliou te du ma jaayal ci yoon yi nag am na lu ma ci xam am na lu ma ci maîtriser ndax loolu Serigne bee ma ko dimbali ndax olof nee na ndimba euh, ndimbalul yàlla du coono waaye am ko du sa ngóora am ko du sa ngóora kon nañu éviter yenn communication yi nañu wax kenn ku ne na nga téye fa nga téye boo dee murit teel tarixa bi na nga téye tarixa murit ba mu dëgër waaye nag na àndandoo bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam boo def tijaan téel a téel tarixa cheikh boo mu dëgër ñu àndandoo bëgg yonent bi ndax bu ñu dajee ci yonent ba rek foofu tolérance fay am nag ndax kenn ku ci ne ndax lu ñu lu ñëpp bokk moom kenn ku ci ne da nga cay jël la nga ca kenn ku ne da nga cay jël bàyyi sa morom mu jël la mu ci war a jël donc yenn wax yi yenn wax yi amul benn njariñ te Sénégal gii mënuñu fexe fexe fexe fexe fexe ba Serigne Touba ak ak maam ji Hadj Malick fa nu bokkee la ma dégg rek ku tedd ko wax ko fii nag nit mën na fee wax ba yàqoo fi waaye nit mënu fee wax ba fi dara loolu il faut ñu ñu ñu ñu prêter ci attention bokk na ci sax li tax woyu yi ma génne ko moment bii mu génn bokk na ci li ma ci gën a neex mooy contexte bi mu génnee ndax man la Serigne Saliou waxoon du fekk lu yàlla yaatal ma di ko xatal lu dul diineeg lislaam amu ci yàq amu ci defar te lislaam ji benn la diine ji benn la na ku ne téye la nga téye te nangul sa morom la mu doot te ànd ci ak moom ñu ànd bëgg rasulullah alayhi salaatu wasalaam ànd julli ci moom ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la demee wax nga wax ji Gallo maa ngi lay bëggee yow tamit Univers Info maa ngi lay char bu baax sama waa ji yow lu ma nekk yaa nga ca euh, question bu am solo nga posé ndax nañu xam ni daal Pape Mboup mi jug di way Serigne Babacar nañu xam ni cofeel rek la ko defee nañu xam ni bëgg rek la ko defee nañu xam ni yéene rek la ko defee te yéene ji cofeel gi moo nga moo nga dooree ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi laa amul ci moom sago bëggee ko xeetu mbëggeel goo xamante nii amut limite mënuma koo mesure ba képp kuy jëwriñ yonent bi def naa la ci sama biir xol bi ma jug nag nit nag booy dem marché ah, la nga yor ngay nduggee nit booy dem marché la nga yor rek ngay nduggee aw ma lu dul xiin yii nga xamante ni moom la ma moom laa moom laa fi fekk mu jiitu sama judd ma di ci woy ma woy ci yonent bi sama si sama album ba ma woy ci yonent bi ci xiin yi juge ca woy ci Serigne Touba loole ma poussé kat loole ma motivé ba ma woy ci euh, euh, ma euh, comment dire Serigne Babacar Sy te loole moo ma yóbbu ba ma woy ci keneen ak keneen ak keneen ndax aw ma leneen lu xiine ndax it kenn ku ci ne jàpp nga ni fa nga mënee foofu rek nga mën a wonee sa talent xam naa ni daal bugguma ko woy woy woo xamante ni dañu naan Pape Mboup daa cof Serigne Babacar xam ma tax dégg nga maam de bëgguma koo woy woy woo xam ne dañ naan Pape Mboup mii daa cof Serigne Babacar Serigne Babacar si kenn du ko cof Serigne Babacar borom borom bonekaare bi kenn du ko cof li ma jàpp ni daal bu ma ko defee woyu am benn niveau bi li ma jàpp ni bu ma ko defee woyu nit ñi mën a gën a déglu woy wi xam la ma la la la la lay sababu woy wa loolee rek laa jël boole ko muy xiin samay awkat dem xool studio bu baax bu cher yëkkati samay koppar yu baree baree bare fay ko fay samay awkat fay samay bàkkat def ay répétition tëju ay fan bind ci sëriñ Babacar ngir rek ndugg la loolu lépp ci xeeti ndugg la ba ma nduggee ba pare nag euh, euh, euh, togg naa yàq naa ko may ñaan rek ñu xam ni ki woy Serigne Babacar cofeel rek la ko woyee ndax ku ne xam ne ni ñoom taalibe taalibe cheikh yi seen i daawul ànd ak ay xiin ak yooyu waaye nanu xam ne daal bëgguma daal ñu ne Pape Mboup mi daa cof sang bi Serigne Babacar kenn du ko cof

ten bis comme ni ko sama naataangoo yu waxee daga laal fi pour way way ñëpp tagg ñëpp parce que ñun ñëpp ñoo bokk si même kilifa mu yonent bi sa sangi mais dañ gis sa complice yow ak fondation fa nekk moom tamit dafa ne woowuma kenn si tarixa mm-hmm. ku nekk jàppal sa tarixa nga ñëw ñu tase ñu ànd bëgg yaa Rasulullah kooku tamit sëriñ boo wax mu demal si ba jee ñu gis sa complice yow ak Cheikh Mohamed Abdoulaye Thiam soxna Nabi mm-hmm. sa complice ak fondation Kër Rasoul tey lan mm-hmm. moo la si posé ak waay bi tamit xam nga uh, posé nga neex junior kooku mën naa ni yokk na sama cofeel ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku xool Pape Mboup na mu daan waxee ak na mu daan ku yàgg bëgg yonent bi laa nag waaye nag phase de réalisation bi dëgg dëgg dëgg de Cheikh Mamadou Abdallah Thiam jeune ci ndax kooku boo ko fréquenté benn fan rek yokku say salaatu boo ko fréquenté benn yoon yokku mu yokku sa cofeel ci yonent bi alayhi moo ma jël taf ma ci boppam xam ni taalibeeb Serigne Saliou laa ñu bokk Serigne Saliou waaye dani ma képp ku tarixa bu mu manti doon na nga ñëw ñu àndandoo bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam yokk suñuy salaatu ala nabi foofu fondation Kër Rassoul ni mu ko tuddee c'est le carrefour des amoureux du prophète carrefour des amoureux du prophète noonu la ko tuddee kon complicité bu mu am ci moom moom ma ko may ndax wolof danaan bëgg buur baax na waaye buur bëgg laa ko te ci xiin yi laa woy Cheikh Mamadou Abdallah Thiam soppee na bi ku ne xam na ni moom woy naa ko woy xamante ni eh, woy wu mu safoo la fu ne la koy partagé fu ñu teew mu woyloo ma ko fa te ci xiini laa koy donc kooku maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax à travers point de point de presse bi Cheikh Mamadou Abdallah Thiam soppe na bi yokk nga ñu yokk nga yokk nga suñu cofeel ci yonent bi yokk nga ñu envie di def ay salaatu ala nabi li bu ñu demee ba tey sax ñu ñoo tëdd journée bi toog journée ba journée jeex te defuñu lu mu bon bon 1111 salaatu ala nabi ah c'est grâce à moom ndax ndeem xamoon nañ ko sax ndéem bëggoon nañ ko waaye motiver nañu ci mo moom moo gën nañu cee motiver motiver davantage kon complicité bu mu am ci moom rek moom moo ma ko may ndax moom ku ne xam na ni murid la taalibab Serigne Saliou la waaye nag daa jël woote ñëw leen ñu àndandoo bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu tuddee ko fondation Kër Rassoul waaw kooku daal gàcce ngaalaa ba daal jërëjëf xam nga Serigne Saliou nag wax dëgg fa neex yàlla teel na no wax na wax Serigne Saliou wax na fi ñuy toogee nag moo ni duma ma fekk lu yàlla yaatal ma di ko xatal waa kii la wax loolu ni lu dul diineeg lislaam awma cëg yàq awma cëg defar Sëriñ Sall ni du fekk mukk lu yàlla yaatal ma di ko xatal munul ñàkk nga am base am sookul am foo jóge am ku la defar am ku tax nga mel ni nga mel mais nag ouverture bi munul ñàkk man pam Mboup mësuma bokk ci ñaan du nu keneen waaw ndax ku xam ku xam luy Serigne Saliou kuy ku xam luy wooteeb Serigne Saliou kuy wax Serigne Saliou naan Saliou man Saliou rus na maa jamonoon teg nit muy dem safaan waaw Serigne Saliou ni Saliou man Saliou rus na maa jamonoon teg nit muy faatuy dem safaan Serigne Saliou yéene yé yéene yéene jaam ñëpp aljana yéene leen texe waaye kon xam nga ni Serigne Saliou kat du la ñàkk yéene aw woykat ku yéene nit ñi àjjana xam nga ni woy du du ko du ko ñàkk Serigne Saliou yéene na ñëpp ñu ñu ñu sargal leen Serigne Saliou yéene na ñëpp ñu ñu ñu ñu màggal leen Serigne Saliou yéene na ñëpp ñu wekk ñëpp ndax da ndax ndax ndax ndax ndax ndax ci société la ñu ne comment vivre en société da nga war di une relation du doit s'animer par le rendez-vous di donner et di recevoir ñu ñoom taalibe cheikh yi ñoom taalibe Baye Niass yi ñoom xaadir yi ñoom laa laayeen bu ñu demee ñun sa ñun laayeen ñun xaadir ñun ñaseen bu ñu demee ba nangul ñu ñun taalibi gi ñu doon doon taalibi Serigne ba lu ñu xewle di ñu cawoo man pam bu ma di ko joué sama morom keneen keneen ni pour ni vraiment nangul leen ca lan moo ko wax moo ni sàllaaw man Saliou rus na maa jamonoon te kenn muy faatuy dem safar ki yéene nit ñi ñi àjjana xam ne yéene na leen lu rawoy waaw kon Pape Mboup daal bokkut ci bi naan du duñu way keneen c'est ça qui fait l'exception de entre Pambou et les autres parce que tu man su je anticiper gars je damay ba def ma def kon tout man après le bac j'ai ma licence en communication dans le cadre général donc amna, c'est-à-dire amna ben cest à war sa à di leen njëkk ci yenn yi nag pour ne pas dire pour ne pas ñu ñu lëre war naa di njëkk gars yi nag ci yenn yi nag bu dee nag li ma jàng nag maa ngi koy tari nag war bu dee li ma jàng phase réalisé naa ko gars yi nag lu war naa man war naa man di xalaat ba noppi ñu soog a xalaat nag ndax nag loolu ay pam mbub nag am na ci loo xam ne gémmiñ gu waxut dëgg wax leneen du ma bàyyi ba gars yi def may soog a def ndax ba may jàngit war na ma jural dara te Serigne Saliou compal ñëpp moo ma compal su ma ko booleeg études yi war naa mën war naa mën a nag vraiment di def loo xamante ni def ba noppi gars yi soo ko def nag gars yi di jël ci mën repère ndax la ma faral di la ma doon wax rek laay man lii ma nekk damaa bàyyi sama lépp ne nee naa leen woy naa ko Sénégal région yëpp Afrique laay wër jàll Europe Asie Océanie dem ba États-Unis Serigne Saliou foo ko jaay mu jar ma ni du temps du espace gisuma lu may tee ma woy ko ci langue yi ma man yi ma mënagul agul jàngi ko weesuwul ndax Serigne Saliou foo ko jaay mu jar kon Pape Mboup tey jii lii muy def peu importe mu teel fee ñëw ak mu yéex a ñëw sama mag yi ma ci njëkk maa ngi leen di remercier au passage ñoo ko defar ba ma rafet bañ xemeem ko waaye sama nawle yi ma yi ma ko dooroon dool di ko defandoo ak bu ma sañoon sama mag ñeeg ñi ma ko dool bu sañoon kenn du ma jiitu nag bu ma sañoon bala ñoo wax kenn ni Pape kuy ñëw ne ci sama ginnaaw ñoo ànd liggéey bi ndax faw kon faaw am ku jiitu duma ma jiital kenn di ci teg di ci teg sama bopp man kay maay jiitu ñëpp topp sama ginnaaw ci ndimbalul sëriñ bi donc modestie à part war naa man di xalaat ba noppi gaa yi soog a xalaat ndax bu dul dara sëriñ saa mi leen compal moo ma compal waaye nag jàngi naa leneen loo xamante ni ñoom échappé na leen après le bac j'ai ma licence en communication dans le cadre kon war naa mën di xalaat ba noppi gars yi soog a euh, bi ni nga ko jëndee ak gàmmu bi ah, loolu loolu loolu évident. on ne veut pas quelque chose et son contraire loolu c'est évident gàmmu gi dal nañu xamni pap mu da daa mës di yaalee daa mës di sillonné waaye ren lay raw nak Tiwaawan fim nek dal daal fim nek ñu kilifa yu bari ñoo ngi may wo en toute sincérité bi déggé déggee ni dama ko nas rek ku ci melni wa fondation xale yu judd ci ginaaw mbay ta dama ko nas affiche doomu lañ gis dégloo xamaguñ sax lama ma way waaye moo lu rafet rek am solo galo lu rafet rek am solo lu rafet rek rek rek moo am solo gars yi affiche rek la ñu gis sama photo ak photo ku tedd Serigne Babacar Sy Pape Mboup mu Serigne Sall woy na Serigne Babacar ñu bëgg yi may jot dem nit ñi dañuy jooy di wax noo xamante ne am na ci xaw moo ne sax ay taaliba Cheikh lañ te dañ maa bëggoon ngir Serigne Saliou waaye démb lañ ma fësalaat bi ñu gisee affiche bi la ñu fësalaat seen cofeel ci man ñu ma Pape Mboup gën nañ laa bëgg gën nañ laa sopp gën nañ laa na fi mu nekk ñoo ngi may xëccoo ci gàmbu gi xam naa ni mënumaa dem fépp waaye dinaa foo xamante ni mën naa faa àgg rek danaa fa jaar ku ci mel ni Abdou Aziz Ndiaye taalibe Serigne Babacar si la ku ne xam na ni nu mu mel euh, junior moo ko def di ñaanal yàlla na yërmandeem gën a sotti ko ci moom Abdou Aziz junior al amin di jàmbaar Abdou Aziz Ndiaye moom it vraiment à travers sëram soxna Juma ñoom it ñoo ngi may invité ci gàmmu gi ñu fi seen ne ànd ngénte ji woy wi ñu woy Serigne Babacar Sy foofee ca Tiwaawan waaye soxna Marie John soxna Marie John mi nga xamante ni amul lu dul amul lu dul Serigne Babacar Sy moom lay waajee te moom lay walle soxna ma Marie Dione moom fi mu nekk nii yàlla mi tam xam ne bi ma génnee ci màggal gi man rek maa ko mën a challenge loo te taalibe Serigne Babacar Sy la mu safar safar goo xamante ni di rey ay xaram di rey ay nagam di joxe ay paasu màggal te taalibe Serigne Babacar Sy la boo duggee ci këram nga xam ni taalibe Serigne Babacar waaye mu nangul ma lool moom nee na ma sama kër Pape Mboup fa ngay fa ngay fa ngay fa ngay fa ngay fa ngay gàmmo waa champ de course aussi pareil léegi maa ngi jot seen message waaye nag ku ci mel ni ajarut ajaa kinde mbaay sama goro koo xamante ni moomam ay soxna ñoom ay mu xaddamu Serigne Babacar la seen maam donc ajaratu Kiné mbaay ak sama soxna Mamita seen famille ñoom ñëpp ñoo ngi may xaar ci gàmm gi incha allah danaa fa dem waaye ku ci mel ni soxna Tima An taalibe Serigne Babacar si ku ci mel ni soxna Fama taalibe Serigne Babacar ku ci mel ni Khalifa Babacar mi nekk Maroc ñoom ñoom moom fi mu nekk nii ziar fees bii di ñëw daf ma ci invité ngir ma ñëw ñu ngénte woy wi nga xamante ni moom la ñu woy Serigne Babacar pour wala la ñuy wax on tend vers la perfection lu baax ku ko man def ko te bi ma koy def maa ni woy wi duma ko rax du ma ko jar du ma ci dugal benn tur boo ko defee mu nuru leneen donte dara néew ci donte dara néew ci dugal ci turu ñu sopp Serigne Babacar luy taaral woy wi la waaye daal dama ne yëg-yëg bi ma am ba woy Serigne Babacar ma tëdd kenn influence wu ma tëdd xalaat xam ne lii dama ko war a def duma ko rax képp koo xamante ne su ma la woyoon tudd saw tur mu neex la xañ na su ma woyee sëñ Babacar Sy mi bu dee dëgg la ci woy wi dana la neex te noonee la demee depuis démb woy wi tey les jours génn depuis démb fu ne laay jotee message risque dana ne pas être trop bavard Bamba gàmm gi Pape Mboup dana saf sap Tiwaawan ci moom nga am ci Sëriñ Babacar Sy lii du fësal na diineeg sunaas yonen bi kenn du ko xool ci moom mere ko nga am ko ci sëriñ waaw waaw ku bëgg waa yonen bi faw nga bëgg ko lii de divine la Babacar Se taalibe Cheikh de lu mu ndaw ndaw xamee na fa muy jaar ba bëggal ko

si d'école yi dellu weer la croire au hasard la ndaw ñu juddu ci ginnaaw mbay juddu ci ndaw ñu juddu ci te gisuñu mbay gisuñu waaye mbay rek lanu gëm-gëm gëm gu wér a eh, kii de jar na wayal eh waaw waaw sëriñ Babacar mi de jar na wayal waaw waaw Sidi Faga yi mi ci jawar njogu faama Demba njogu faama Bakare Garaman penda pate penda bëgguma penda borom bone kaare be gammu de yaa ko man ay ca Modou Matar borom manto bi Serigne Babacar Burdu yaay borom maam Babacar Jóob njaxeer mu xaddamu mbay la sooy wayal na way ku jëfam jotaaro sëriñ Babacar si ku xool gis làmb daj soo mi gaaña sànk woon lan ku ko woom wiisee mbalaanum wasifa yaa ko tàllal oga ناصر العاقبة di jolli muy riiroo boy wayal nanga way ku defam jotaaro Sëriñ Babacar Si ku ko woo muy se daan nga mbay daan nga yaa nge ilaa Tiwaawan ñu dem Tiwaawan taalibe Cheikh yaa nge sooy wayal na nga way ku jëfam ju taaro Serigne Babacar Sy ku ko woo mu yéese